dalli nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo njiitu réew mi di président Macky ki ni ki démb ma ngi woon ci Allemagne ngir nag a forum économique boo xam ne dañu ko fa amal mu àndoon ak secteur privé national bi yéenekaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu njiitu réew mi nag càkkutéefam moo nekkoon allemand yi gën a dugal seen loxo ci lu jëm ci mbirum investissement ci réewum Sénégal waaye nag loole bu ñu sukkandikoo ci ba Mbagnick Diop mi nga xam ne ma ngi woon ci forum économique mondial boobee ngir secteur privé bu Sénégal àndoon nag njiitu réew daat nay wax ñi nga xam ne ñooy Allemagne nag ñoom jamono ji daat nañuy pare ngir investir Sénégal moo xam ci mbirum ndox la wala assainissement wala sax mbirum xarala yu yees yi njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag daat nay wax secteur privé bu Allemagne ne leen nag ñun pare nañ gunge leen man ak sama gouvernement président Mbagnick Diop njiitul MEDES daa di xamle ci biir yéen kaay gii di réew mi quotidien ne secteur privé bu Allemagne ñoom nag daat nañuy pare ngir gunge secteur privé bu Sénégal ci boobu leen ndaje secteur privé bu Sénégal ñoom nag amal nañu fa ab forum ak mbooleem association ak organisation yi nga xam ne ñoo ëmb petite ak moyenne entreprise allemande yi ginnaaw loole tamit chancelière Angela Merkel daan na leen di dalal recevoir leen ginnaaw loole ministre bi nga xam ne moom lañ dénk ci wàllum koom ginnaaw loolee tamit journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal nañu njiitu réew mi di président Macky Sall daat nay dalal ni ki démb député bi di Karamba Diaby mi nga xam ne na fan ñu génn moom lañ fa songoon bëggoon koo faat ak kii bali fetal mbooleem ni wax nañu ko ma ngi ci biir journalu groupe Soma consulting bi yéen a kaay gii di la témoin mu ñu xamal lan ñu Erdogan njiitu dem Turquie ci réewum Sénégal waaye nag journal bi nee na en tout cas li am ba des mooy waa Turquie mbooleem li nga xam ne nag ay marché yu rëy la jëm ci mbirum infrastructure te nekk sa jam ñaajo ñoom ñoo si daal di teg loxo journal bi daal di dikk nag ci code bu yees bi nga xam ne jëm na ci mbirum gaz ni ki démb député yi daat nañu koy dagana daganal ci kanamu Makhtar Cissé mi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu woowu député yi ñoo doxalee lu ni mel Mamadou Lamine Diallo ni ki démb moom nag daal na dal ci kaw ki nga xam ne mooy nag Makhtar Cissé daal di koy wax ne projet de loi bi yéen da ngeen ko yàkkamti beneen bi nag li tax ngeen koy def mooy neexal seen partenaire étranger yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew seen intérêt rek tax leen jóg waaye nag du intérêt réewum Sénégal ba tey ci biir journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal naa ñu Mamadou Lamine Diallo bu tekki daal nay merloo sax Makhtar Cissé ndax dem na ba koy wax ne ko yow da a kaay gii di la témoin Makhtar Cissé nag di fa question ak i tontu nan la njiit di président Macky Sall sécuriser li nga xam ne ma maanaam mooy sunu ressource naturelle yi yéen a kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal laa ñu nag ginnaaw lu jëm ci wàllum code pétrolier bi jamono ji nag code gazier bi daat nañu koy daganal ni ki démb ci assemblée nationale waa grand place dikk nag ci piccoog mbaaloo gi ak diirante mbagg gi nga xam ne moo am diggante Aly Ngouille Ndiaye mi ñu dénk intérieur ak Samba Ndiobène Ka mi ñu dénk mbirum élevage jamono ci ñoo ngay giita ngaas ca diiwaanu Linguère yéen a kaay gi di la témoin mu ñu jaxate mi nga xam ne daat nañu koy dàq ndax nag loolee du ndorteelu nguur guy jeexa yéen a kaay gii de la turbine mu ñu xamal nañu Macky Sall jamono ji dafa mel ni nag wéet na ci xeex bi ndax mooy président jiite réewum Sénégal di lijjanti ba pare jiite gouvernement bi beneen bi jiite parti bi nga xamante ni daat na yëpp ci xool loola yéen a kaay gii di réew mi quotidien ak Vox Populi mu ñu xamal nañu nag virus bi nga xamante ni daal mooy lëmbaaje Chine di coronavirus moom nag daat nay tiital étudiant sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk Chine ñoom nag ñuy ñaan Macky Sall di sàkku si moom nag ñu daal leen di jële Chine andi leen ci réewum Sénégal waaye nag ambassadeur bu Sénégal ba nekk ca Chine jamono ji nag dafa ne patt pataara bii di Vox Populi mu ñu xamal lan ñu jamono ji nga xamante nag étudiants yu Sénégal yi nekk ca Chine tiit nañu loola France ak états ak Japon ak Maroc ñoom génn nañ seeni doomi réew yi nga xam ne ñoo nekk ca Chine ndax virus boobe nag ma ngay rey rek di wëy ñàkku kaaraange gi di wëy njóoba sekk mi ñu rey ci Pikine ginnaaw raay journal bi mu ñu xamal lan ñu yaayam ma ngi nettali ni nga xam ne moom la mbir ma demee nee na dafa toog ak njóoba sekk ba mu yàgg téléphone am sone mu daal di am ku mu waxal génn na ko yaay maa ngi ñëw dellu si waatul ba ñu xëyee nag la ñu ko wax na ko sa doom daat nañu koy rey journal bii di Vox Populi mu ñu xamal nal ñu arrêt sips fa ko daal di rendee rey gu ñaawa ñaawa yéenekaay kaa di sunu làmb xëy dikkal ñu si combat Ama Baldé Modou Lô bi nga xamante ni mooy combat bi dàq ci saison bi